waaw kon de maa ngi leen di fay bu baax ci siyaare bi ngeen ñëw ànd ak suñ njabooti bopp yi Moussa mi ak Saloum mi ak njaboot yi ci des yëpp rek waaw fu ne nee nañ ma njaboota nga ko wallaahi euh, kon bu ngeen ñëwee ngir juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw siyaare ma ci loolu day daal di rëy ci man lool maa ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm li ma doon wax sàng nag wax naa ko wax naa ci politique bi li ma ci doon wax kenn ku ne eh, na ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim rek àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy sama ndigal ci ñépp daal bañ a wax ñaaw wane daal li nga xam ne tey danañu yaral suñu njaboot gi ëllëg te yéen yaakaari njaboot loolu daal loolu laa mën a wax ci siyaare boobu bu ton bis bi itam mm-hmm. ah danaa mën a wax ak yéen mm-hmm. waxtaanu biirum néeg mm-hmm. ak waxtaanu bitim néeg dafa bokkul waxtaanu bitim néeg bi nag war naa ko wax oh, ki toog li may ñaan yàlla yéen ñi fi ne moo xam ki fi ne moo xam ñi fi jóge moo xam ñi bëgg a ñëwaat ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla yàlla déggale ma ak ñoom. amiin waaw loolu rek ñaan yàlla. Ah. te nit koo xam ne nii tey lu mu xóot xóot boo ko naan bàyyil tey mu baax. kooku it day xam buy dugg ci dara ni muy doxe uh-huh. hmm? uh-huh. uh-huh. li ma wax nag. bu fekkee yéen a ngoon ci jataay bi. Mhm. dégg ngeen baax na saa du lu may nëbb du lu may làkk. boo mhm. xam ne bu leen jàppalee yéen ba ngeen gañe mhm. dañ lay ordale ne la fi sëñ bi jëm bu fi jëm. bee boo nga tàggoog moom léegi. bee ngeen daal tàggoog moom léegi. waaw fi sëñ bi jëm bu fi jëm ndax man du ma leen lekkloo xatax. du ma leen wax lu leen yàlla du leen digal leen yàlla digalu mm-hmm. du ma leen te kenn ci yéen ku ne wax dëgg yàlla yaakaaruma ko waaw ndax bu dee lu mu doon rek làq naa ko kon nag mm-hmm. ginnaaw ñu ngi may film ni nañu mm-hmm. wax rek ne kenn ci yéen ku ne daal seenub ànd ab doo ngi ni jóge fi léegi maire Touré xam nga dégg nga léegi ma ne ñi ànd ak ña nekk Touré Mbon ah? da gisuma sa banen nit bu ñew song ko mhm. era sama talib yi and and mhm. ànd nak mo eskay te li ma wax yeen yéen sañu mu ko wax toogi ndax ñu bare ñew rek ne ma maa ngi mhm. mi mo mo mo don président communautaire mi ngi ni da len di jàngal bam fi joge ñu ne dañ ne sëñ Moustapha moo fi jele man jëlewuma kenn fan ah waaye keroog la ma gën a jege. ah xam nga kon li may wax alhamdulilah bi nga fi teewee. Mm-hmm. Mm-hmm. keneen ku mën a doon it yërëm naa ku yor gox bi nii opposé ma. Mm-hmm. doo dem. da mënta dem <laughs> loolu moom lu jamono yàqu-yàqu doo dem. ndax sa na ko yore du baax. ndax loo loo yëkkat rek ma topp ci daf leen xaf koy suuf doo dem wallaahi ñi xamuñu ma ñenn ñi taalibe lañ ñenn ñi laneen lañ xaw ci catholique xaw ma murit xaw ma tijaan mhm. daal mooy mhm. kilifteef gi nga amoon mhm. yaag Saloum mii ba créé ak ñeneen ñi nga xam ne sañ a waxal nag kenn la forcé waaye képp koo xam ne ànd naag yéen daal ëllëg waxoon naa la ko bu mu la dëwyee jëmee la foo xam ne bokkut ak fi ànd woon incha allah incha allah bee boo nga xool ko bu baax incha allah kooku du doon sa njariñ te du doon njariñal dëkk bi incha allah neexal ma kenn nag ñi ma mës a gis itam maa ngi jërëjëf buñ ma bëggoon a falu ministère tey xam nga ne du sotti ku ma ko wax du doo ko wax ah mhm. falu naa ba nopp yéen rek yéen a yore mbir mi waaye nag na ngeen ko gungee kilifteef mhm. waaw mhm. lu ma indil xeexale nit ñi ak tàqale leen daal mhm. xamal ne Moustapha du dugg ci loolu te du ci dugg lu kenn naa nag seere si ngeen ma ci bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ji yonent bi indi mm, yàlla nañ ko def ci ci ci jàmm amiin amiin ah, xëy na ñi nga xam ne tey maay seen sëriñ sax xàmmewu ma leen kon gan ñiñ ma indil du ma leen mën a xàmme waaye nag maa ngi nii daal ku ma yëg daal daal daal jàpp ku ma yëgul dama la du gees yaa ngi ñu ngi àndal ñëpp ku ma yëg ma téye la ñaar la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma booy nuyoog ab jullit da ngay ngay daaral sa loxo ku jox loxo ma ñoddi la daaral kon nag la des mooy dalal naa leen eh, na nga leen nga leen seet foo leen dalal mhm. salam. kenn ci yéen ku ne mën naa dalal morom kër gi seen kër la li ma mënta dugg nag te mënuma cee dugg ci jamono yi ma toll mm-hmm. mooy politique mm-hmm. di xeex kenn mm-hmm. wala may boddi kenn ci ñi ma xam ku ma xamul nag dama ko xamul waaw gan gu ak si nii rek bala ngaa dugg <laughs> dana am da am problème moom waaw ndax dama la du président Macky fii la njëkkoon a ñëw gaaral fii ñëw fekk ma fii loola lañ ci wax waaye barki dem bi mu naa ma ci Touba nag ma jàppale ci législative booba loola lañ wax nee nañ sax fal gi jàll jàppale wu ma ko waaye man bu ma ko jàppale wutoon mu yëg ko wax naa ko. ne ni béjjën nag la mel rek ne seetlu fee ah bëgg laa orienté mhm. te mën naa am bu buat ak yow it boo dem boo watee gagné mhm. mën naa am mhm. kon sedd ci loolu incha allah man daal foofu xaasin noonu mooy samay wax eh, la leer kenn bu kenn commentaire ginnaaw bi ak bu bal gi jàllee ngeen gagné ngeen bañ a gagné bu gagné dal ñëw di ma indi li problème bàkk nga ñàkk danaa la contre te te doo ci te do fi góor ne bu baax bu ci mënut loolu nag dee boo mu roppi ay déggoo a ab opposé la. dëkk la ba xam daaw daanam de. incha allah waaye du ma nangu nag. ñu indi man du ma opposant. du de. kon na leer ñëpp. opposé wu ma. contre ma président. Mm-hmm. Moustapha Abdou xanaa xaalis yi moo ne ne man it sëñ sa alaat waaw bañ bañ watee ba jàll mhm. bu du toon dof du ma nuyu mhm. am na ci ñu ma bàyyi woon di kaat nañ mhm. ndax man njariñal kese laa te ñoom amuluñ ma benn njariñ ah, foofu rek la mbir bi ne xaalis mii bu doxoon dañ dox suñu diggante dañ ko ne sëñ Bello daaneel man daaneelu ma kenn alhamdulilah bi mu ne seen wet nag yaram ak tegginam booba tey la gën a dër ah mhm. waaw mosuma koo sas lu mu mënut mhm. te lu ma mas a wax def naa ko mosuma mhm. koo sas dara sax macha allah nag bu toogee fii di seen mag man ñu man leen a jur eh, damay wax ne rek loolu dama ciy bëggaat alhamdulilah bu ma kenn commentaire ci dara bu bu taxawee bu kii taxawee ne sëñ ah wala neexee taxaw ne sëñ ah mu jax tak dal daal ngi leen di fay nag eh, di leen wan ki ngeen doon dégg yéen ñi ma ngi waaw foofu laa ne ah man kuy waaj eh, a ku kuy bëgg a kum ci mën a doon toppatoowuma la fal gi may falu falu waaye na ànd ak yar ak tegin ak wax loo xam ni ndax léeg-léeg benn waay wax ma toog fii sama nekk taal rajo bi taal affaire yi YouTube bi dégg ko mm-hmm. bu dee day saaga damay dégg saaga mm-hmm. Mm-hmm. même ñu nuy saaga sëriñ bi di saaga sëriñ Tuubaa sax dama waaye du ma metti sax nag ndax duma xam du sama jabar du saaga kenn wallaahi wallaahi ngeen xel loolu incha ah, kon nag kër gi seen kër la ku neex nga ñëw ci politique ak budut politique. waaye nag sañ na ma wax nag ak ñoo xam ne dañoo mënta tàggoo. Mm-hmm. waaw loolu. Mm-hmm. waaw Modou Faye mel ne na ma léegi la sañ fi ma ne ko déet. waaw naa dégg nga ko. dégg nga li ma wax. xam nga làqu ma. bu bu bu amatoo payam. waaye nag taxut nag kenn mas ne mas naa ko sas lu mën. te ñi ma xamul sax ku ma ci dem sa kër jële fa ganaar wala gàtt mais danga ma dul gis hmm. hmm. na am na ci ñoo xam ne xamuñu ma wallaay waaye man it am na ci ñoo xam ne xawma leen dëgg la mag gi la nag ak gis hmm. ma mën a xàmme nit ñi dëgg dëgg wallaay Mbacké wala tax ki ku ma nuyu ne ma mën a diw ma xam këram ndeysaan waaye ñëpp ma ñor wallaay Mbacké ne leen leer ne yéen ñëpp ñor ngeen ma ngeen góorgóorlu dalal leen leen inchaallah euh, ban mën a ah mën a ñaari baat rek ma ah, yéen am na ngeen fee dajeel. ma ragal la dem. amul ku ma rusa dem wala ku ma rusa ko. xëy na nit kay mooy ñëw rus maa xool. loolu nag ah. yàlla ma baal ma de yéen ñu nuyoo gun ngeen baal ma waaw yàlla moo ma ci dimbale woon rek ay noo ma tegu woon ci yoon boobu waaw moo tax ñoom it yoon woowu laa leen di digal ñu tegu waaw jërëjëf moom daal xam nga kuy jëw doo doo doo toog may wax <laughs> waaw li ma wax lu la nañ ñi la buñ de buñ yoree jikko jooju daal eh. moom mii de keroog bam bam bam am na ñu noose woon kër gii nii mm-hmm. keroog ba mu wàccee bàyyi nañ kër gi ay yi romb dañuy dumoo yi waaye dañu bëgg a dee ku bëgg a dee ku bëgg a dee moom ñëpp del si nañ waaye bàyyi nañ kër gi waxuma la bàyyi ma mais sama waa kër sax dañ leen a bàyyi njariñ kese dañu gën di ko rek wallaay njariñ kese ah, man politique mën a lu ma dara wallaay Mbàkke waaye moom nii xaw ma ku ko ci dégg la ku ko déggul waaye wane wu ko